ñu ngi leen ko doon wax tey jile ci bët saalumu réew mi la ñuy dem fekk ji fa Lamine Ba ak Lamine Mandion Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar Lamine tey lan nga ñuy jàngal foofu fan nga ñuy yóbbu. ñu ngi leen di euh, daral fii ci Ziguinchor di leen euh, ziar. Euh, donc xam ngeen ni tey ñu ngi war a waxtaanee li nga xam ne nag moo di tuuru Casa di Mansa tuur wa fan la jógee lan moo ëmb ci ginnaaw ci taarixa ak lan la tekki dañuy doxantu biir tali Ziguinchor laaj waa Ziguinchor est-ce que xam nañu d'abord tuuru Casamance fan la jógee. woo ñu tuuru mu au fait euh, mi ngi jóge ci sunu sunu maam yi maam yi jógee Guinée Bissau fa la fa la Casamance Ziguinchor bàyyi ko moo tax ñu tuddee ko Ziguinchor. bon Casamance c'est c'est l'ensemble c'est c'est l'ensemble parce que soo xoolee ñun ñun soo xoolee bi mën naa ne colonisation bi moo ñu moo moo moo ñu moo ñu ñun fa la ñu bàyyi ko suñu cosaan maanaam Casamance euh, Casamance Guinée Bissau la jógee wàcc Ziguinchor. waaw tuuru Casamance. li ma ci jot a xam rek mooy Casamance euh, dafa bàyyeeku si xeetu bu nga xam ne mooy ko ñu ne Kasa di Mansa Kasa di Mansa Manso moom booti naan Kasa Kasa di Mansa waaw foofu la ñu ne foofu la tour Casamance jógee casa di Mansa Mansa soose ça veut dire le roi mais Kasa Mansa bu Mansa bu la case du roi. waaw mhm. loolu loolu tekki bi ban langue la exactement. en tout cas ñu ngi ko xamee si tuur soose parce que je crois à l'époque dañu ne woon bay nañ koy fukki woon dañ jógee woon kaabu donc ñoom soose lañ doon lakk donc ko kaasa mbitaa kaasa di mansa c'est-à-dire mbitaa mansa la bunguto on va chez le roi waaw si tuur soose waaw merci Euh, gis ngeen bi ñu jaaree ci ñi nga xam ne nag ñoom laaj nañ leen seen xam-xam ci li nga xam ne moo di wax léegi nag ñëw nañu euh, gis nga xam ne nag moom euh, ab jàngalekat la bu retraité jamono ji nekk xam ku fës bu baax a baax ci li jëm ci wàllu culture dañ koy laaj xalaatam lan la jàpp ci li nga xam ne moo di Casamance fan la tuur wa jógee lan moo ëmb ci ginnaaw lan moo wuutu tuur bi ci li ginnaaw li nga xam ne moo di taarixa Abdoulaye Sidibé la tudd dañ koy gis waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy tuuru Casamance man sama xam-xam bu gàtt xam nga ne bon euh, léeg-léeg dañuy far di laaj lan moo indi lii lan moo indi lii waaye ci suma laajte euh, li ma ci dëgg mooy Casamance xam nga Casamance dafa nekkoon diwaan boo xam ne ay euh, portugais dañ fi jaar portugais nag fu ñuy jaar nag bay nañ fa lakk boo xam ne créole lañ koy wax te boo gisee tey biir Ziguinchor ñu bëri këpp këpp juddu Ziguinchor amaana war nga dëgg créole ñu bëri dëgg nañ ci créole ñu yaakaar ne turu Casamance ci Casa di Mansa la jógee Casa di Mansa mooy kër buur e, tër boobu daal ñun daal bu ñu nekkee xale ba léegi nekk tuutànk ba léegi ci suñu gëstu loolu la ñuy wax ne Casamance daal Casa di Mansa la tudd ndax boo gisee yenn quartier Ziguinchor yi sax yu mel ni Corentas Corentas mooy canal mooy maanaam caniveau te turu créole la yaakaar na nag Casa di Mansa luñ ñu ci wax daal mooy ci tur bi ci lakku créole la joge muy Casa di Mansa loolu mooy kër buur bi loolu daal lañ laa ci mën na xam loolu laa ci gëstu laaj lañ ma ci wax daal ñeneen ñëpp mun nañu in am am beneen signification waaye man daal signification bu ñu ma wax te bu ma téyee mooy boobu. loolu dafay firnde ne am na ay jamono yi nga xam ne ay buur fi nekkoon balaa république bi di juddu xëy na. waaw non Casamance kay ay buur fi ma sa ne xam nga bu Casamance moom yàgg na yàgg na ay buur ba léegi sax am na ay boo demee aussi am na buur boo demee Moulam am na buur mais donc euh, diwaanu euh, Kaabu. ay buur a fa nekkoon diwaanu Mali ay buur a fi nekkoon balaa euh, tubaab bi di fi ñëw. ñoo ko déggandoo ci euh, donc euh, nañ ko Abdoulaye Sidibé Faran Facce li nga xam ne mooy tuuru Casamance dégg ngeen ko Casamance moo ngi jóge ci ci ci xeetu kàlla kàllaama boobu nga xam ne nag moo ngi di Casamance jërë ngeen jëf. merci beaucoup Lamine Ba Lamine Mondiang et euh, Khadim Djaïdi. ko 7h40 euh, jot très rapidement Mortala Casa Mansa euh, on imagine aisément proximité bi mans Guinée-Bissau donc comme nous ñu fa nekk sax dañuy lac créole maanaam melting pot là en fait Casamas dafa c'est une zone frontalière un peu à la Gambie, à la Guinée-Bissau. Euh, dañuy dugalante di ñëw. Mhm. donc euh, xeet yi di dam di dugalante di ñëw créole bi également am fa doole. donc moo tax peut-être euh, jàng bu bees la ñu xam ni doon nañ dégg Casa di monsa mhm. mais faram-fàcce bi leeral na ko. d'accord merci beaucoup Mortala 7h41 malheureusement faaw ñu dem RFM.